bi euh, defaruwul est-ce que euh, quelque part bu fekkente ne nit ñi amuñu loolu état tamit du jël ay responsabilités pour que ñi nga xamante ne ni euh, ñoom ñooy wàcc yoon ñu mën di leen teg yoon pour dissuader ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo nekk derrière peut-être di waaj a def mbir yu ni mel. waa xam nga dissuader ay doomu aadama pour ñu bañ def dara day fekk yow état say responsabilité mooy teg nga doomu aadama yooyu ci noo leen tàggatee ba ñu bañ a def dara. Mm-hmm. loolu base bi foofu lay tàmbalee. gis nga tey quand tu vas aux États-Unis da ngay dégg ñun la Amérique c'est l'un des pays les plus démocrates Amérique liberté de l'expression nous mhm. nous mais américain bi nous nous beaucoup de di taxaw ci nous nous wala ci ci nous c'est-à-dire que les policiers, nous nous ci nous wala nous nous ko juste quand on parle de la justice les gens font allusion à nit nous sol nous robe taxaw hémicycle mais justice c'est d'être juste avec toi-même mhm. être quitte avec ta propre conscience subconsciente cest à nit ñi dañ leen a war a tàggat ba ñu rus seen bopp jomba def yenn yi xam ni lii baaxul ci société bi. Mm-hmm. donc su ma ko defee yow nga def ko keneen def ko mu jógee ci biir kër gi dem ci biir quartier bi jógee ci biir quartier bi dem ci mbedd mi dem ci réew mi su ko defee day propagé wu. Mm-hmm. donc réew yi nga gis muy ay réew yi nga xam ne neex naa dund c'est parce que nit ñi dañoo dañ leen a tàggat ci seen bopp mais mënoo jàpp ni mais yaroo ko. li war ci moom réew mi li mu waraloo moom defu ko pour mu nekk nit mais nga mu màgg dem ba dëng nekk car bu dëng nga jekki-jekki bëgg ko jubbanti ni ko da ngay da ngay da jubbanti ko par la force mhm. et li gën a garaaw nu ñu war a mën a def ba tàggat suñu société vers la droiture dama ko gisul ci benn parti politique mhm. muy ñuy kujje tey ak ñi fi nekkoon de 1960 à nos jours mooy li may wax ni Sénégal dafa nekk oto bu wàcc tali mhm. oto bu wacce tali tegi ci rara mhm. bruit bi day bari rejeek rejeek li ngay gis yépp ci rejeek rejeek gi la mhm. malheureusement bu wesso ma gisuma kenn ku wax lo xamni wurna war naa mën a tax Sénégal ci kaw tali bi d'accord ma la solution ah oui ma euh, dénominateur comme ñoom euh, lan lañu japp ni tay xeyna buñ ko tegee euh, ci kaw table ji auto bi comme ni ngoy koy dina dina wat ci ray wa xam nga ñun lepp lo gis mu am rek wala mu am dat accident mais lepp lu amul dat du deñ du le Sénégal nous avons des conséquences. da ngay conséquences chaque jour ma wax ko conséquences lañ taxaw jox leen mais pour nous, il faut que nous ne dañuy nous devons nous fi nous comme nous. ni nous mhm. ñun et nous, nous, duñ ne ci ñun peut-être mandat bi ñu yor mais nous mandat ñun bi ñu yor nous mi ci la xam date bi Nous dama lay wax nous ñun rek wax ci politique. bis bu ñu jëlee réew mi képp ku judd ci biir Sénégal ak foo mënti juddoo sur le temps du territoire di nga dem jàngi lu amal njariñ réew mi et li amal njariñ réew mi yar da ciy bokk maandu da ciy bokk jub da ciy bokk jubal da ciy bokk dëgg da ciy bokk dëggu ak dogu da ciy bokk boo juddoo Touba wala nga juddoo Daaka ja wala nga juddoo Tivaouane wala daalu le Fouta fi shérif yi contrôlé ak foo mënti juddoo wala Medina Gounass danañ la fuqati ak ku la mën a jur yóbbu la ci lu amal njariñ réew mi parce que loolu ça ne se négocie d'une république il n'a pas besoin de demander à voir le jour ñoom ñoo jël seen ay responsabilité et responsabilité wu parents yi responsabilité wu réew mi la kon réew mi citoyen bu fi juddu dañ la war a fuqati encadré la tabax la ci lu amal njariñ réew mi donc exactement ñun loolu moom mooy suñu suñu suñu suñu base la voilà alors euh, Cheikh euh, euh, nu mu tuddati sax Bah Diakhaté moom la ñu doon wax tout à l'heure mais gis nañ ni am na keneen koo xamante ne nii seen nasuwaay soo xam ne mi ngi ba bitim réew def ab vidéo def ci ay aveu yu doy waar ay déclaration Euh, euh, Tunkara euh, li nga xamante ne ni moom la wax ci vidéo yi par rapport ak projet beeg yi nga xamante ne ni moom jot na ko caa def mu doon ay mbir yu doy waar boobu lay déclaration naka nga ko jàngatee. waaw xam nga wax naa ko nee naa bu fekkantoo ni du une chasse aux sorcières. par rapport ak li arrivé bay Diakhaté. ndonte man Baye Diakhaté li mu wax duma ko wax. parce que ça ne m'intéresse pas li mu wax. Mm-hmm. mais une chasse aux sorcières la. parce que avant sax Baye joxete di wax li mu wax mais président de la république son excellence Bassirou Diakhar Diomaye fay bi mu jëlee nguur gi mais gis nañu boy bo xamni moy mooy drapeau ci ginnaaw Ousmane Sonko mm-hmm. mais dafa génn ci téléphone ñëpp di ko gis mu saaga mm-hmm. lolu gëna gën président bi la sagandé institution de ce pays ah mais oui mom la sagandé ndeyam diko di ko gis ci TikTok vidéo yaa ngi fi di circuler mais luñu ko bo ñëwé ci ki nga ma defal allusion muy Ousmane Tounkara mm-hmm. que je connais très bien ñu nekkandoo Harlem jamono yi mouvement yi di am fii Sénégal mais dafa live ci oto pour prouver la li mu wax ni moom moo ko wax dafa live ci otom daal ni am nañu nervi fii au niveau de New York benn nervi la ñu am New York tailleur la mi ngi tudd Cheikh Thiam joxe sama place joxe sama adresse su atelier Amérique yaa ma gën a xam Amérique les jeunes noirs américains la façon dont ils sont fanatiques drogue jaral leen lu ne yaa ma gën a xam jeunes espagnols yi fa nekk mooy latino yi drogue jaral leen lu nekk Amérique ngay dem fay nit 100 000, 200 000 francs 400 400 dollars wala 500 dollars mu la ni Ousmane mettre ta tête en vente am di attention defal attention il a fallu que ma dem ci commissariat police bi dend ak sama atelier pour déclarer wu ba nga xamni dañuy dañuy dañuy ay sur sur ma sécurité c'est extraordinaire il a fallu que avant may mais génn ci wax ji ba set rek ci mel ni du woon moom ni ma man maa ngi jéggalu dëgg la ñun mën nañoo politique ci biir di waxante li ko waaye wuruñu ko seq nak dama djum ñep nee ma dama djum jéggal ma maniko non amul problème mon frère mais man comprendre naa parce que niveau niveau compréhension la parce que xam nga amna na Pastef ñi leen propulser au pouvoir ñi wax wax ba njël pouvoir bi 98 ci ñom seen bop yi am ko koppa ci nek donc man bu ñu ma tooñee amul problème dama xam ni seen niveau la xam ma comprendre nga li may expliqué donc bu fekkoon ñu ngi ci réew mu réew mu xamni amna justice boo xam ne ñi koy incarné nit ñi. Mhm. nekkuñ ci parparloo mais sun ko tey mu ngi ci mandat d'arrêt Ousmane Tounkara moo ko wax Ousmane Tounkara laay wax mu ngi ci mandat d'arrêt parce que moo taxaw avier kooku c'est un aveu de mhm. taille. moo taxaw ci otoom ne. Mhm. man dépense dépense dépensé naa un milliard de francs fa pour ñu defar ay cocktail Molotov. pour ñu taal ay pneu. pour ay sëy jàmbur tas. koo xam ne sa jëkkër. Macky Sall won dara danaa ba sa jabar wàcc la yonne na ay boy sama kaddu gi ay boy ray nañ ci sen bop mm. mais moko wax kooku bu fekkantoon ci réew mu sérieux la ñu mais wonon nañu def mandat d'arrêt international dem jëliko indiko waye mm. affaireu waaye affaire u dóor la loolu lañ bëgg a commencé mais nak loolu du tax nit ñi nopi parce que ñom lima la wax rek dañoo tapalé tapalé tapalé ba réew mi dal ci seen kaw. Mm-hmm. man jàpp naa ni sax sénégalais yi li ñu waroon def pour le moment mooy la nouvelle opposition. Mm-hmm. ñu def retrouvailles de circonstances rédiger une lettre d'une démission du chef de l'État une démission oui le président de la République il war a bind lettre au niveau du conseil constitutionnel pour me démissionner parce que il n'est pas à la mesure de supporter ce pays dans dans ses épaules non dafa am lu mu wax loo xam ne réew moo ci àdduna mhm. dans notre constitution dafa avéré que le chef de l'État le président élu démocratiquement a am prérogative définir la politique de la nation Moi, am seul les prérogatives nommées civiles et militaires mhm. mais président bi vidéo mo mo mon ne ministre mais gis il a fallu conseil des ministres lañ koy lay a mom niko yow yay mhm. ba premier ministre am def ci CVM. c'est un aveu de taille Faut ko wax mhm. mais du moo tax ma ne la ñoom li ñuy def nii comme ni ñu waxoon rek am nañu programme dig ñoo digg a dig ba tooy tooy xepp ñëw ba léegi réew mi bloqué yaa ma ko gën a xam. Mm-hmm. depuis deux mois. réew maa ngi ni tekk dara doxul. Mm-hmm. donc on devait on de nous devons nous retrouver ñu en en rédigeant une lettre. qui sollicite la démission du chef de l'État ñu dem déposer ko même bu jàllu sax ndax du jàllu ne ñoom ñoom nguur gi xam nga yoon ak allez-y. mais euh, Cheikh Lolo, euh, quelque part est-ce que mon ko ko nangul dans la mesure où moi mooy nommé ki nga le premier ministre le premier ministre en retour d'aller nommé son gouvernement et qui nga xamante le ni ñooy Je ne je dis pas le contraire Il faut dem ci àdduna bi loolu mën naa am moo fa y a des choses qui se dit pas et puis ce ko gën a firndeel c'est pas moom qui gouverne. dafa am yeneen yu ci am. Mm-hmm. moom mooy gouverner un président démocratiquement élu entre le Sénégal et la France France n'est que son partenaire stratégique. Mm-hmm nek réew moo xam ni moo jur Sénégal nampal ko bot ko dagg mbootu bot ko bàyyi ba Sénégal do mën a dox mu bàyyi ko mu dem même bu jàppee ci mbagg yi sax di ko téye ba tey mais la France mérite beneen traitement boo xam ne sinti ni bokkut ak ni ko premier ministre bi di doxalee premier ministre moo génn ñu jël réew mi moom muy un président élu démocratiquement premier ministre bi dem invité ku jël troisième un populiste le père des populistes du monde Jean-Luc Mélenchon ñu ñëw jël ko yóbbu ko suñu hémicycle université ci turu non mais c'est le premier ministre du Sénégal. Sall est ce que Ousmane Sonko a mon capacité ou Jean-Luc Mélenchon je crois pas Comment on comprendre lui le gars il est à la conquête d'une popularité à la sorte que à la limite il euh, devait font de n'importe quoi sur le dos du Sénégal réew mi voilà, politique parce que élection mise kii gagné une amna na ko bokku ba comme nous, ñofi nekkon jamono nous ñoo mais nous ñun ñëpp ko bokk tok di sétane ñuy def Nous xamni ñun ñi nga xamni Nous ni aduna bi di dañuy ces gens ce qui sont en train de faire c'est des balivernes donc ko nangu sénégalais il faut ñu ñu ñu ñu ñu nangu suñu mhm. wala ñu saytu pour le moment ñom la fi mhm. at leen jéemal lenn lu leen fiy jëlee ndax mënuñu ko sax ndax dañoo bëgg Sénégal garder ay valeurs démocratiques mhm. ay valeurs républicaines stabilité message bi muy joxe waaye bëgguñu koy ñalamé di jaxé c'est des farfelus c'est des farfelus affaire comédie lañuy def te loolu daru Sénégal moo ciy gàkkee waruñu ko nangu. ayca leer na ma fàttali rek ni yéen ngi ci seen émission cadeau à diaspora ñu ci ànd toujours ak Cheikh tiam l'ambassadeur autoproclamé de la jeunesse sénégalaise Cheikh dañuy tëj ponk bobu jàll ci beneen ponk opération de déguerpissement yi nga xamante ni ñu ngi koy nemé